jërë ngeen jëf askan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu bu baax kenn ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax si seetaan bi ak yéen nga xam ne dina nekk di ànda ñun si Q Radio muy téeméer ak ñett yu tomb ñett fii si biir Kairaba ñu ak yéen ñi nga xam ne léegoo-léeg ngeen seen ittee ànd ak ñu si Facebook bi wala boog sax si bi ñu fas enne indi leen xibaar yi londi ji ngeen di si ànd Biram S Diop lu gën a fës nag te ji si biir xibaar yi di njëkkoon dokkale bu baax képp ku nga xam ne nekk na julli rawatina sax si ñu nga xam ne ñoo loon màggal muy juddi yonent bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon muy ba si samedi di juróom-ñetti fan si weer yi am octobre te ñu ko doon defee nag si yenn màkkal nekk fii si biir réew Gambia lépp lu fi doon di ñaan nag yal ko yàlla buur bi dal di ko nangu gannaaw ba lu weesu na ba léegi nag si bopp xibaar yi di ngeen jotee dégg ne muy pipeline community bi ñi nga xam si bopp ñoo dal di dëkkee si ab gox nga ne xamee si pipeline ñoo dal lëkkaloo ak Kanifing General Hospital ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk seen yenn naataango pour gisoon na nag mu demoon ne nag si boobu lépp daan pour war a mun a yëkkati wàllu muy mayam deret di ko war a mun a aaree muy askani Gambia gannaaw bu lu weesoo tamit léegi muy at bu nekk su jotee juróomi fan si weeri octobre at bu nekk World Teachers Day muy bés bu nga xam ne dañoo màggal muy di jéem a dox doole muy képp ku nekk jàngalekat si bépp fànn boo dal nekkee ñu dal di la ràññee te nag bi nañu ko di defee si Kerewaan Kerewaan mu nekk si biir tundi North Bank Region gannaaw bu lu weesoo kenn ku ñu a xamee si Lamine Diatta muy Modic nekk doomi réew yi si boppam nekk si biir moom nag jamono ji nag moom am nag muy beneen yokkute bu xam ne def na ko gannaaw bu nga ne gis na ne nag muy mi ñu nga def seen kéem tolluwaay kattan pour gis ne dina war a mun a am nag maqaam ak place bu ñu leen nekk di leen fale si council bu nekk foofu noonu si biir réew yi Sweden kon askan bi yii nii ak yeneen xibaar incha allahu rabi si lu bañ a yàgga ñu indi leen si a yaatal gannaaw bu lu weesoo fu ñu fas ne ak yéen si njëlbenn xibaar bi nag moo nekk pipeline community bi maanaam ñi nga xam ne daal di dëkkee si dëkkuwaay bu nga xamee si pipeline pipeline mu nekk si biir Kanifing municipality si Kedaba Avenue ñoom nag jamono ji nag ñoo lëkkale woon ak Kanifing General Hospital mu nekk léppanaam bu nekk foo na si biir tuuti nga xam ne ñoo nekk seen wàllum naataango ñu gisoon ne samedi bii ne passé ñu yëkkati woon pour wàllum mayum deret nag li nag moo nekk pour ñu gis nag muy wàllum deret nekk na anam bu nga xam ne duñ ko lay jaayati nag doomu aadama moo ko mën a may nag moromam kon nag ñu ne ñoom moo tax ñu daal lëkkaloo ak boobu léppitaan pour nar faa war a a dem nag maye deret te yàlla tax pour war a mën a aar ñi nga xam ne si boppam de ñoo ko dal soxla te suñ ko amutee seen dund dina xaw a nekk di tëq suuf moo tax si kër bés boo naka ñoom ñu demoon pour jëm féddale nag lu war a toll si fukki at gannaaw bi ñu ko commencé di ko def ba léegi nii si kër bés bi nag muy Safi Abia nekk député programme manager bi si National Blood Transfusion Services maanaam ñi nga xam ne ñoo amee na muy wàllum deret bi si buntu kay nguur gi ñu amee muy wàllum wér gu yaram bi moom nag refale nu baax a baax muy taxawaay bi nga xam ne si bopp nag askan mi jël nañ ko rawat na ñu dëkkee foofu na si biir muy Kanifing municipality rawat na sax si fu nga xam ne moo nekk muy pipeline mu ne naka lii nekk na lu nga xam ne si boppam ne askan wi loolu la ñoo dal war a mun a puukaroo di ko def ndek deret doomu aadama moo ko mun a may moromam te nag deret ndigam duñ ko lay jaay baax na pour nit nag soo fogee ne yow am nga deret bu doy nga dem dimbale keneen ndekte loolu nekk na si anam nga xam ne mun na moo aar bakkani doomi aadama si ñi nga xam ne lay soxla nañ ko lool te fekk mu ni ko dandi ko amee si benn béréb mu ne kon nag may deret nekk na anam bu nga xam ko defee yow war ngaa mun a kontaan pour nga xam ne yow nag aar nga bakkane doomi aadama ndek léegoo la nit ki su ko soxla dafay jàmp-jàmp bu nga xam ne nag moom di ko mun a amal boppam waaye nag fu ñu jéem a seet ñu ko war mun a nekk di ko amee mu ne kon nag su nekk nag askan wi ñoo neen pour jéem a ñu nag ànd ak ñoom nag pour gis nag a muy deret dinañ ko maye si ni mu gën a mun a nekk di sellee loolu nag mu ne nag am na si mbegte bu baax mbaa di ñaax nag askan bi pour kenn ku nekk mu jëm a jikkoo muy yooyu façon yi fànn mu ne ñaareel bi tam baax na pour kenn ku nekk mu xam nag sa deret naka ban façon yi am euh, bindoo la daldi bindoo ndax mu ngi nekk mu ngi nekk wala boog sax mu ngi nekk bii wala boog sax loolu mu nekk si yenn façon yi xaaj nga xam ne gëm na képp ku nga xam ne si boppam sa deret am na ni ko war a mën a nekk di kon nag ñu ne soo xamee sa méngalante dina baax nga xam ne ëllëg si biir naka su nekkee gis nga ne nit ki soxla na ko yow di nga mun a xam ndax yow di ko mun a may ndax yow sa deret dina mun a dem ak deretam wala boog sax kooku noonu si boppam dina mun a ànd ak yow sa wàllu muy deret si biir loolu nag muy Duudu Njaay Duudu Njaay moo nekk président bi si Pipeline Community Association moom nekk wane na bu baax a baax si Pastef bi nga xam ne am nañ ko ñoom ñi ak seen yeneen naataango yëpp ñu gis ne lii ñu dal di ko def lu war a toll si fukki at si gannaaw ba léegi ñu koo dal ko def fii si biir réewi Gambia mun na ñoom nag préparé na pour gis ne lépp lu nga xam ne moom la ñoo def rek dinañ ko baaxoo di ko yokku ndekte loolu noonu mooy war a mun a dimbale doomi aadama mu a ñoom nag am na mbégte bu baax a baax di jaajëfal seen yeneen naataango lu mel ni que muy Prime Insurance Company Limited Lala's Cleaning Trust Bank ak muy Qcell mu nekk ab GSM opération bu nekk fii si biir réewi Gambia. moom Dudu Ndiaye nag mu ne nag lii nekk na li nga xam ne nag jikkoo nañ ko te fas nañ ene pour gis ni dinañ ko mun a continuer saa nga xam ne yàlla buru mel na leen man-man bi wér yaram ak kattan bi ñu dal di ko war a mën a dimbalee ñu tëdd si lepitaan bi mu ne lii nag def nañ ko pour gis na mu ñu am deret bu doy mu war a àgg nag si lepitaan nga xam ne que saa yu ko nit soxlaa rek du war a am benn jafe-jafe nar ko war a mun a amee si yooyu façon yi lepitaan gannaaw lu nag muy Pa Babou nekk head of lab foofu noonu si lepitaan bu nekk si biir Kanifing mu ne nag baax na lool pour kenn ku nekk nga mun a ñëw naka dimbale sa morom maye deret ndaxte mun na moo am yoon mi sax tey nga maye ëllëg si boppam de yaa ko daldi ko soxla wala boog sax sa jege ñaale dina ko soxla lool mu ne kon nag ñoom ñu nekk di liggéey si bopp bi rek am nañ mbégte bu baax mbaa pour gis nag askan ñu ngi ñëw pour jàppale wante ak ñoom pour ñu gis ne dinañ jéem a may deret mu gën a war a mun a nekk di yombee mu ne ñoom ñi nag bala ñu war a mun a jël sa deret dinañ gëstu baax a baax ne benn amuloo benn feebar ñaar ndax sa wér gu yaram may na la ko ñett ndax am nga deret bu doy bal ngaa war a mun a ñëw pour maye mu ne nag loolu nag foo ñu bàyyi ko xel la bala ñoo gis ne yow may nga dara fekk yow nag loo dal di am dafa tuuti te munoo may keneen mu ne beneen bi mooy dina seet ndax yow mi amuloo benn façon feebar lu mel ni comme HIV and AIDS muy feebar di sida wala sax mu nekk hepatitis wala boog sax mu nekk muy yeneen façon feebar nga xam ne mun na moo wàlle ak mun na moo gaaw pour lor bakkani doomi adama docteur Masire Nding Ndiaye nekk head of department si am Kanifing General Hospital bi ñu amee muy wàllu muy jigéen fu ñu nekk di matoo mu ne moom nag mbégte la am ndete mu nekk ku nekk xam na ne jigéen si toll si wàllu matu lu muy ñàkk si deret daf lay bëri lool mu nekkoon nag ñoom nag ñoo ko gën a soxla pour nag ko war a mun nekk da ko si wàllum wér yaram bi nii mu ne kon pipeline community association bi naka gannaaw bi nga xam ne ñoo neen di ñaax ñeneen ak ñeneen naka jéem a takku na jéem a def yeneen booloo pour ñu gis ne ñu ñoo mee deret saa yi nga xam ne si boppam ne soxla nañ ko wala wax sax si waxtu bi nga xam ne si boppam ne nekkoon di ko wootee lii nag nekk na anam bu nga xam ne su boppam ne may deret lu am solo la pour doomu aadama war ko mën a nekk di ko jukkoo nekk deret bu xam ne moom nga dal di may si léppataan bi duñ ko jaay waa naka mun na la aar ak tam jéem a aar ñeneen ñi nga xam ni ñoo ko dal di ko soxla ba léegi rek si xibaar yi fu ñoo fas yéene ànd ak yéen muy juróomi fan si weeri octobre su jotee at bu nekk nekk na bés bu tegee bor pour jéem a màggal jéem a képp ku nekk jàngalekat si bépp fànn si bépp réew ak si bépp gox goxaan fu nga xam ne foofu nga nekk defee sa fànn muy liggéey li ko waral nag gis ne naka muy jàngalekat yi seen liggéey métti na lool te naka ñu bëri naka gis ne naka muy jaar jaar bu nga xam ne moom lañ dali am benn foog nga dali jaaree si ab jàngat bu nga xam ne ay jàngalekat moo la ko dali la ko jàng si jamono muy tuut tànk moo tax réewi Gambie ne benn réew demu ñu des gannaaw pour gis naka bés bu si jotee muy juróomi fan si weeri octobre ñu dal di ko magal nag ren jii ñu ko doon magale si Kerewaan Kerewaan mu nekk si tundi muy North Bank Region kerek àllarba bële dal di passé muy Wednesday World Teachers Day dina ñu ne nag nekk na bés mu nga xam ne teachers yi dina leen woo dina leen jàppale dina leen baaxoo gëstuwaat bu baax lan moo nekk seen jafe-jafe lan mu nekk ndam ñi nga xam ne am nañ ko ak ñoo war a ñëwee naka dooleel leen naka xamal leen naka def leen masa coono pour nga xam ne naka muy liggéey bu métti bu nga ñu ngi ko def te fekk te yàlla tax ñu gën ko war a mun a nekk ko continuer ndeg loolu nag nekk na lu nga xam ne si boppam de kenn mënu leen naa nekk di leen fay moo tax naka kerewaan gannaaw bu ñu ko fa defee ñu bëri dem mën a teewe ji ko rawatina sax mu nekk muy square band bi ñu nga xam ne ñoo daal jiiteel ngeen a xamee si match paas dalee ko si Kerewan police checkpoint bi dem ba si regional education office bi nekk foofu na si biir tundi Kerewan Lamine Jeete nekk regional education director bi si North Bank region muy tundi Kerewan moom mi nga xam ne si boppam nag wane na bu baax la mooy ko muy bibit ak daraja bu ñu war a nekk di puugaroo képp ku nekk di yëngu si walla muy jàngale kaay mu ne nag juróomi mu ne kon fan si weeri octobre su jotee nag nekk na bés bu nga xam ne képp ku nekk jàngalekat yaa xam da nga nekk muy màggat nga wala boog sax jamono yi yaa nga nekk di jàngale war ngaa daldi ko puugaroo ndekte bés bi sa bés la war ngaa daldi wane bu baax li nga xam ne mooy que sa wàllu muy yokkute yi foto fanna mu ne bés bi nag nekk na bés bu nga xam ni ko daldi tegee woon boor mooy ILO muy International Labour Organization ànd si ak UNESCO muy kuréel bu amee muy wàllum jàng mi wàllum aada cosaan si mbootaayu réew yi bi si atum 1996 mu war a toll si fanweeri at ak dara si gannaaw lii nag nekk na anam bu nga xamee si su nag mu ne nag mbébét mooy nga gis ne que mooy jàngalekat yi nag dina leen gëstu nag dooleel leen xam seen yeneen jafe-jafe ak ñu war a mën a ñaaxee nguur gi ñu war a nekk di leen jàppale. Jeynaba Diallo nekk Young Teachers Platform seen kuréel bi nga xam ne ñoo amee muy wàllum jàngalekat yu ndaw yi fii si biir réew yi Gambie si gox goxaan mu gën a xamee si région 3 moom nag ñaax na nguur gi nag di leen woo neen jéem a seet naka ñoo war a mun a doolelee jigéen ñi wala boog sax jàngalekat yi suñu gën a war a mun a teelee ndek ñoom day nekk ay ndaw te kon nag ndigam nag ñoom ñoo daal tànn nag jàngale leen bu ko nekk di def leen nguur gi di leen gestu doole leen yokkal seen fay lokkal leen lépp lu nga xam ne mooy war a mun a dooleel ticca yi ngir ñu war a mun a ñàkk dawee si boobu béréb mu ne réew bu nekk da si demee bi nga xam ne am na yokkute nag nañ xam ne jàngalekat yi nag am na si wàll bu nga xam ne moom la si dal di def te kon nag mu ne warugal la pour gis nag ñoom ñooñu ñu jàppale leen comme ni nga xam ne ne nekk di jàppale muy wàllum fayam lempo fii si biir réewi Gambia mu ne nag jàngalekat yi nag dafa war a nekk si anam bu nga xam ne que ñëpp dana war mun a dooleel bàyyi leen xel comme ni nga xam ne la réew mi di war a mun a bàyyi xel li mu gën a soxla si biir réewi Gambia ak fulal bu mu ko gën a nekk di ko fulalee Modou E Touré nekk regional chairman bi si Gambia Teachers Union si gox-goxaan boo doon di region 3 muy si Tundikere waan moom moo doon dal wax naka lu mu gën a xamee si speech. maanaam di ko wax si turi ku nga xam ne moo nekk seen njiit bi di président bi si Gambia Teachers Union mooy ku jiite képp ku nekk jàngalekat fii si biir réewi Gambia mu a ñoom ñi nag nekk nañ mbootaay mu nga xam ñoo boot képp ku nekk jàngalekat te préparé nañ pour gis ne su rene seen njiit bi dina ñax nguur gi ngi ñu war a mun a def seen kem tolluwaay kattan pour jéem a jàppale képp ku nekk jàngalekat si bépp gox goxaan si bépp fànn bu nekk defee liggéeyam ngir liggéey bi gën a mun a nekk di jaar yoon mu nekk nag gis na ko mooy ndaw yi kenn ku nekk su jeexalee nag muy jàngatam daf lee kontaan lool waajuram dañoo kontaan loolu waa nag dañoo fàtte ne am na ñu nga xam ne de ñoo leen nekk di leen jàngal waaye nag métit bi nag bëri na lool si boobu façon ngi fànn mu ne nag nit soo bëggee dara foog nga seet ne war a mun a doolelee ku nga xam ne moo la war a nekk jox muy lool daal di soxla ren jii nag màggale bi nag ñu ko tuddee woon muy transformation of education begins with the teachers loolu nag si kàllaama nasaraan mooy lépp lu nga xam ne mooy war a mun a ñëw pour jéem a suppaliwaat muy wàllum jàng soo koy commencé war nga ko war a commencé si kanam yi muy jàngalekat yi ñoo war a jaldi jiitu te ñoo loolu nag su amee dina tax nag muy lépp loo def rek dina commencé si jàngalekat mu gis boppam yéeg boppam xam ne lu moo liggéey lu am solo la doole mu tamit soxla am na ko te loolu mooy war a mun a yóbbu muy jëm kanami jàng mu ne nag loolu su amee loolu dina am bu baax ba lu moo war a mun a yóbbu wàlloon jëm kanami jàngat fii si biir réewi Gambia moo tax nag at bu nekk si jotee mooy juróomi fan si weeru octobre ñuy màggal muy World Teachers Day muy bés bu ñoo màggal képp ku nekk jàngalekat si àdduna bi ak si bépp gox goxaan mu nga xam ne foofu nga dal di nekk ba léegi rek si xibaar yi fu ñoo fas yéene ànd ak yéen moo nekk Lamine jaata nekk na doomi Gambie waaye nag mu nekk fóone si biir réew mi ngeen a xamee si Sweden moom jamono ji nag nekk na activiste kii nii nekk na ku nga xam ne def nag muy wàllum cosaan bu mag a mag si wàllum muy taarix gannaaw bi nga xam ne que tànn nañ ko mu nekk muy kansilo si foofu na si réew mi ngeen a xamee si Sweden nekk sa dëkk bu ñu xamee si ama Stockholm moom Diatta mi nag. nekk na ku nga xam ne su boppam naka moom waajuram mu ngi cosaanoo foofu noonu si biir Sukuta Sukuta mu nekk si biir Kombo noonu waaye naka nekk na bu baax a baax muy foofu noonu si biir réewi Suède ay ati ati nga xam ne nag moom nekkoon na fa pour def yeneen yi nga xam ne de moom la moo war a mun a nekk di def si fànnamu yokkuteem ñu ne jaata mi nag muy Lamin Jaata nag nekk na ku nga xam ne mun nañoo gëm nekk si ab ndawaayam moom nag dugg na si biir réewi Suède jaxasoo na ak gaay am na nag mu liggéey bu am solo bu nga xam ne def na ko pe nit ñi nag yaakaar ko ba daal di ko dooleel si lépp lu nga xam ne moo nekk muy mbébét bi nga xam ne am na ko nar ko war a mun a dugal si wàllum muy àq ak yelleefi doomi aadama wàllum luwa ak ñoo war a mun a émale képp ku nekk doomi aadama si bépp fànn moo dal di dëkkee moo xam nga nekk nit ku ñuul mbaa nga nekk tubaab wala boog sa nga nekk muy yenn façon ngi nit ñi nga xam ne dañ dal ñu ne moo tax si diggante ñaar fukki at ak juróom benn nga xam ne moom nekk na ko foo na si boobu réew def nag liggéeyam bu baax a baax te nekkoon na lool tax na bañ ko dal di tànn si boobu mbir suñ fàttalikoo nag muy fóon si boobu réew nag ñu bëri di nga koo baaxoo di ko ooyee lu ngeen a xamee si Barack Obama maanaam mos na moo nekk muy président réew yi Amérique lu ko waral nag mooy képp ku nga xam ne nekk na si gannaawam gëm na ko yaakaar na ko te nag gëm na ne kii nii mun na moo indi wécceeku ko si béréb bu nga xam ne moom la ko dal ko tànnee rawatina sax pour jéem a taxawal képp ku nekk nit ñuul mbaa sa nga nekk di aju si wàllu muy doomi Adama rawatina nga nekk muy doomi Gambia ñu ne moom nag jikkoom. nekk na jikko bu nga xam ne si boppam de ñu bëri dañ koo baaxoo di ko màggal rawatina sax muy taxawaay bu moo taxaw si wàllum àq yéele fi doomi aadama wàllum jàmm ak salaam ak nit ki nga war a mun a gis nekk sa gëdd da ko am si wàllum wax lu nekk lu la soob te fekk doo fa amee benn façon ngi tiitaange mbaa benn façon ngi xoqatal bu la di war a nekk di la xoqatal saa yu nga xam ne bugg ngaa def mu yooyu façon mbir ñu ne Lamin Jaata mi nag mu ngi njëkk ñëw fii si biir Gambie nekk si atum 2011 te gannaaw bi fu ñëwee nag ñëwoon na lu war a mën a seet ni mu war a mën a ñëw pour nimeeku ab mbokkam fii si biir réew mi rawatina sax nekk foo na si biir Sukuta mu jàng seen aada ak cosaan ak lépp nga xam ne moo koy war a mën a nekk di ko moom nag si boppam nekk rek nga xam ne nag jamono jii nii am na mu ndam bu mag mu ne jamono yi am na ko foofu noonu si boobu réew mi gën a xamee si Belgium moom nag mu ngi nekk si gox nga xam ne mu gën a xamee si naka municipalité nekk si biir Stockholm te boobu bërëb nag am na lu war a toll si téeméer ak juróomi junne doomi aadama ñu nga xam ne ñu bëri nag ñenn nekk nañ doomi réew mi am na ñu nga xam ñu ngi nekk tam yeneen doomi réew ñu nga xam ne ñoo fa dali dëkk yi ñu ne moom mii nag di Lamine Diatta nekk na ku nga xam ne ñu bëri koo dali ko puugaroo lu ko waral nag mooy taxawaay bu nga xam ne am na ko pour gis ne képp ku nga xam ne nekk nga doomi réew mi wala boog sax nga nekk mu doomi bitim réew te fekk nga nekk si boobu gox-goxaan nga war a mun a dale bànneexoo si wàllum muy wér-gu-yaram wàllum paas bi nu muy gën a mun a nekk di yombee wàllum dundin bi wàllum dëkkuwaay bi ak lépp lu nga xam ne mooy war a mën a yombal nit ñi te fekk muy war a nekk di aju si bépp fanam nga doomu aadama dafa ko soxla si boobu réew ba léegi rek si xibaar yi fu ñu fas yéene ànd ak yéen moo nekk muy Young Mathematician Club maanaam mu nekk kuréel bi nga xam ne nag sos nañ ko te ñu ko sos nag mooy ñu nga xam ne yàlla buru may na leen si wàll muy compter muy wàllum wàññi te nag ñii nag defoon nañ ko fii si biir réew yi Gambie pour gis dañoo war a mën a seet ñoo mën a nemee pour xamal nag ndaw yi lan moo nekk muy njëriñu compte mbaa lan muy wër njëriñu wàññi si wàllum muy jàngekaay fii si biir réew yi Gambie moo tax alxames bii nag passé ñu woote pour xam ma nag ndaw yi nag warugal la pour kenn ku nekk nga war a mun a xam ne wàllum wàññi ak wàllum compter nekk lu métti ndeg bés bu nekk kenn ku nekk si ñun dina compter mbaa dina def lu nga xam ne de dafa war a nekk di méngalanteeg loolu moo tax nag ren ji nag ñu dal di ko seet na ñu war a mun a oyda muy borom xam-xam yi ñu nga xam ne yàlla benn buuru may na leen si fànn muy jàng ak ne ñi nga xam ne ñoo nekk jàngee si yenn jàngeekaay yi ñu war a mun a toog nag waxtaan seet ñoo war a mun a indee muy boobu façon yi yaakaar si biir loolu nag muy Ibrahima Biteye nekk co-founder bi maanaam bokk na si nga xam ñoo daal sos muy kuréel bii nii muy Young Mathematician Association bi moom nag am na mbégte bu baax a baax mu ne nag ñu bëri den foog ne lii dafa dal di métti li ko waral nag mooy si li nga xam ne noonu lañ leen ko nekk di leen ko jàngalee waaye nag mu ne nag bokk na si ab jàngekaay yi nga xam ne moo gën a yomb ndax loolu bés fu nekk yaa ngi fréquenté ak moom te kon nag baax na ñu war na ban yoon moo si gën a yomb ak noo koy war a mun a nekk di ko defee mu ne nag loolu suñ ko demee nga ne xamal ne la ko rek yooyu nga xam ne que li méttiwut te di ko war a mun a nekk di ko jikkoo mu ne moo tax ñoom na ñu góom ne warugal la ñu jéem sos na mi bii façon mbootaay pour nar ko war a mun a dimbale ndaw yi pour ndaw ñu war a mun a xam ne que muy wàllum wàññi muy wàllum compter nekk na yenn si ponk yi nga xam ne lu war a mun a jëriñ la képp ku nga xam ne yaa ngi nekk si adduna bi mbaa nga war a mun a am xam-xam si yenn façon yi fànna loolu moo tax na si kare bés na moom la mun a warugal la pour ñu gis na ko muy ndawe dina leen woo oo na muy borom xam-xami ñu war a waxtaan ak ñoom jéem leen a woon nag mbir mi ni mu war a nekk di demee ak ban ndimbal ñu war a soxla pour jàngeekaay yi nar ko war a mun a jàngal nag muy ndaw yi yokkul leen si wàllum xam-xam suñu gën a mun a nekk di yombee mu ne moo tax jamono ji ñu bëri nag ñu gëm ne nag lii dafa métti waa nag mu ne nag amul dara lu nga xam ne moo fa dal yomb te sax bokk na si luñ ki war a mun a gën a mun su demee ba di war a mën a nekk jàng si yenn béréb bi jàngikaay yi nii ñu bëri naka foog ne ne muy wàllu muy ama jàng yi nga xam ne si boppam mooy ko aju si wàllu muy compté muy wàllu wàññi nekk na ana bu nga ñu bëri na dem foog dafa dal métti te ñu bëri nag dañoo dal dawe muy yooyu béréb war a mun a dem si yeneen béréb naka bokk na si muy docteur Ismaila Cissé mu nga xam ne moom ngi yëngu si wàllu muy politique te na mu ngi yëngu tam si wàllu muy jàngale foo na si UTG muy jàngekaay bu gën a màgg fii si biir réewi Gambia mu ne moom nag yàgg na mu dalli wax ne naka muy lépp lu nga xam ne moom la ma boo def rek mooy bëggoon na mu am xam-xam nag ko war a mun a dugg si wàllu muy pétrole wala mu nag gannaaw bi nga xamee si bopp nag muy wàllu muy liggéey ak si wàllu muy conteneur dafa dalli néew doole lool moo tax loolu mënu koo def nag mu dalli wii si nag muy boobu fasagee bëgg a bëgg pour nar mun a dem nag jàng lu ngeen a xamee si political science mooy di yëngu si wàllu muy politique mu ne waa nag am na solo lool pour kenn ku nekk nga war a mun a xam nag lépp loo def si àdduna bi rek am na lum lalante ak wala muy compter ak walla muy wàññi mu ne kon nag warugal la pour nit ki nga xam nag si ban buntu moo gën a yomb ak noo koy war a mun a nekk di ko jàppee moo tax nag moom nag mu ne warugal gis na ko nit ñi ñu gis na ko loolu dinañ ko war a nekk di ko jàngal suñu gën a war a mun a nekk di demee. Ramatulaay Jallow nekk vice président maanaam mu nekk bëkk néeg bi si kuréel bii di Young Mathematician Association moom nag wane na bu baax li nga xam ne moo ko mu mbégte bu nga xam ne am na ko gannaaw bi nga xam ne moo dal topp nag si njiit bi mu ne kon nag ñëpp nañ xam ne que li météo waaye lu am solo rek mooy nu ne ko nekk di ko jàngalee te kon nag mun nañ ñu bëri ñu ñàkk nañu mu ngi leen lu ko war a rek mooy seen commencement yi jàng bi nu ne ko jàngalee dafa néew doole lool te nag loolu tax nañu bu nekk ñu dal di tiit ñu foog ne nag loolu dafa dal di métti Aïssatou S Diané nekk senior student maanaam nit nga xam ne si boppam mu ngi jàng bu baax a baax si jàngeekaay bi nii di Daddy Diop comprehensive school bi. moom nag wane na moo tam bu baax a baax njëriñu jàngekaay bi nga xam ne moom moo nekk seen bérébu jàngekaay nag rawatina sax ñu ne nekk di leen jàngale muy wàllam wàññi muy wàllam muy mathématiques mu ne nag njëriñ boobu nga xam ne moom la am nag mu ne amul lenn mu ne amul dara lu nga xam ne moom ngaa def si àdduna bi te fekk na loolu lëkkaloowut ak wàllam muy compter moo xam ndax mu ngi yëngu si wàllam dudd gi mbaam nga yëngu si wàllam muy liggéey mbaam nga liggéey si wàllam muy jaww ji mu ne nag loolu foog mu dale ànd ak wàllum compter te bokk na si mooy nga war a mun a xam naka nga ko war a mun a nekk di ko defee moo tax si kër bi nag gannaaw moom dala jeexee ñu bëri nag joxoon ne lu ñu gën a xamee si certificat pour jéem a ràññee ne ñoom ñi kenn ku nekk nag am na mbégte bu nga xam ne moom la dali def rawatina sax gannaaw bu ñu ko wooyee mu ñëw ànd ak ñoom nag wéccu wante xalaat pour ñu gis naka li mu war a dem comme ni mu war a mun a nekk di rafetee rawatina sax ñeneen ñi nga xam ne ko ay njiit leen bokk si Young Mathematics Association bi nga xam ne ñoom ñoo woote woon bii façon jàngat ba léegi rek si xibaar yi fu ñoo fas yéene ànd ak yéen te fu ñu ko daleen dat këppale nag moo nekk muy National Environment Agency muy NEA muy kuréel bi nga xam ñoom leen dal di dénk nag wàllum set ak sellal fii si biir réewi Gambia ñoo lëkkaloo ak Gambia Police Force maanaam mu nekk police réew mi pour nar a war a mun a wër na muy bépp gox gox bu nekk fii si biir réew yi Gambie nag si bépp tund pour nar a xamal nit ñi lu xamee si anti littering law muy loi bu nga xam ne moo dalee tere moo dalee bàcc képp ku nga xam ne jël nga mbalit di ko sànni si mbedd moo xam ndax mu nekk ab benn mbalit la mbaasa mu nekk muy mbalit bu bëri te nag loolu dafa nekk loi bu nga xam ne nag loi réew yi Gambia daf ko si pour doomi aadama a jël nag sa mbalit mbaa nga lekk dara nag daal ko sànni si mbedd bi mbaa di ko sànni si bërëb nga xam ne ko muy bërëb bu sànnekaay mbaa def lu ko si si wàllum sànni kay mbalit moo tax ñoom ñi nag ak police yi ñu dal wër nag pour gis nag dina xam ne gox nga xam ne kenn ku nekk nga war a xam ne que nekkul lay pour mu ne man xaw woon ne loi daf ko dali tere si loolu nag taxoon na bi Alieu Diamanka nekk de député police PRO bi si Gambia Police Force moom wane na bu baax a baax foo ne si biir Farafenni ne warugal la pour ñu war a mun a xam ne que lii mu ngi nekk di dem mu ne Farafenni nekk na dëkkuwaay bu mag. nekk leen dëkkuwaay bu nga xam ne bëri na nit lool car macha allah waaye nag warugal tam fu ñu seet ñu ko war a mën a nekk di ko yëngoo pour kenn ku nekk nga xam ne nag soo demee ba jëfandikoo nag ab dara waraloo ko sànni loo war a def rek mooy nga téye ko yóbbu ko si bëri bi sànnikaay mbalit yi mbaa nga teg ko si ab béréb bépp tuurekaay mbalit su nekkee ñëw neen daldi ko fa jël fekk di war a am benn façon tilimal bu moo tilimal muy dëkkuwaay askan bi mu ne luwaa bi nag nekk na luwaa bu nga xam ne su boppam nag mu mu ne def seen matuwaay bu baax a baax pour gis ne que suñ demee ba ko war a mun nekk di ko doxal képp ku nga xam ne la te yaa ngi def na ak télémal si mbedd bi yoo li nga xam ne ko jëflante ak luwaa te lépp luwaa de loolu wax si yow rek noonu ñoo ñëw pour war la ko mu nekk di la ko yaree Cheikh Alkinki Sagnang nekk senior programme officer bi si am National Environment Agency muy mu set ak seela ñu ko dalee amee fii si biir réew mi moom nag leeral na nag muy njëriñ bu tax bee doomu aadama war a mun a wéccu nag jikkoom pour nar war a mun a dugg si walla muy set ak sella mu ne ndax xam sax su nekk luwaa nag daf ko tere woon sax mu ne ndax sax su nekk luwaa nag terewut ko woon doomu aadama war na mu xamee que set dafa bokk si lu mu war a gën a mun a def ak lu muy war a mun a indi si wàlla muy njëriñam mu ne nag su nekk nag yow jikkowuloo set dina jëfe lool pour nga ko mun a nekk di ko jikkoo si biti mu ne kon nga wéy ci nag xalaat nit ñi bu baax waa pour nit ñi war a mun a xam ne seet ak sellal mu ngi war a commencé si yow bala nga ko war a mun a génnee si biti mu a ñoom nag dëgg la ñoo amee muy wàllum set ak sellal fii si biir réewi Gambia waaye nag ñoo dem si bépp béréb mbaa mënuñoo dem suba ngoon guddi bi ca pour war mun a seet fan ak fan moo seet ak kan ak moo war a nekk di tilimal muy yooyu façon yi dëkkuwaay mu ne waaye nag nit ñi nag mënuñoo dimbalante ak ñoom nga xam ne képp ku ñu gis mbaa képp ku nga xam yaa ngi def muy façon yi ñaawteef ñu tere ko soo bañee ñu war a seet la war a mun a jëflante ak ñu nga xam ne ñoo amee muy mu doxalin luwaa muy ñoom ñi di NEA muy National Environment Agency wele bo sax mu nekk muy Gambia Police Force Musu Keba Fofana nekk jigéen te mu nekk di sëy te ba léegi moo nekk community member dëkk si gox goxaani fii si biir réew mi mu ne moom nag lu nga xam ne mooy nekk gis-gisam moo ñu bëri nag den am nag seen jikko tayef ñàkkaa topp nag muy yenn luwaa mu ne su nekkee wax ne nag yoo nag waru ñoo jëfandikoo muy mbuus waruloo jëfandikoo mbuus waaye mu ne nag dëggal nag nit ñi yàgg nañoo tere ne kenn wootu jëfandikoo mbuus waa nag dan fon ne loolu fa nekk moo waxi kasaara rek waaye amul dara lu nga xam ne la nekk di demee mu ne nag warugal la pour kenn ku nekk nga war a mun a xam ne mbuus soo ko jëfandikoo soo ko sànnee mu yàq suñu wàllu muy dëkkuwaay mu ne ñaareel bi tam warugal la pour kenn ku nekk nga xam ne soo defee lu ñaaw nag luwaa su tegoo sa kaw yow waruloo wax ne naka luwaa bi naka jaarul yoon mu ne nekk ñetteel bi tam muy képp ku nga nekk nga jigéen nga nekk fii si biir réewi Gambia soo jëfandikoo mbuus ba pare war ngaa war mun a seet ñoo ko war a mun a nekk di ko tegee boor wala boog sax waraloo ko daldi ko jëfandikoo pour war ko mun a nekk di ko taal mu ne nag muus dafa nekk chemical bu nga xam ne baaxut pour doomi aadama war ko mun a nekk di ko nokki rawatina sax muy ku nga xam ne moo ko nekk di ko toggee seeni diba moomu bokk nag si konkoxaan bi nag moom wane na bu baax nag muy kontante mu nga xam ne am na ko gannaaw bu nga xam ne gis na ni ñoom ñëw neen di war a waxtaan ak ñoom si wàllu muy njëriñ bu ñu war a mun a bàyyi xel suñu xamee si anti littérine loo muy luwaa bu nga xam ne moo dale bàcci mbaa moo ñëw di teg baaraam képp ku nga xam ne comme ngay yëngu si wàllum tilimal askan bi mbaa tilima gox nga xam ne wala boog sax nga nekk tuur mbalit si wàllu muy yónnee buur muy si kaw mbedd bi mën nag lii nag ñëw na si waxtoom te na mu ngay ñax képp ku nekk si biir réew mi nga war a mën a def sa matuwaay pour jëmam moytandiku ñu dëkkuwaay bi war a nekk di tilimi ñu ne nag léegoolee soo demee nag si suñu wàllum dëkkuwaay li nga gis naka yenn béréb di nga fa fekk na muy wàllum mbalit nga xam ne dañ koo ko tuur te nag xam nañ ñu ko fay tuur nag léegoolee nag dina jëfe lool ñu gis leen waa nag doo a mën a xam kan ak kan moo ko fa dali def mu ne nag kon nag képp ku nga xam ne yow yaa nga jëfandikoo nag lii nag te fekk dem ne ba jàpp la na nga xam ne si kàllaama nasaraan ni ñu ko waxee ignorance of the law is no excuse maanaam xaw ma woon nekkul lay si kanami luwa te kon nag foog lu seet nu ma nekk jëflante yow si wàllum tilimal nga ne moom nga dalee def. kon askan de moo nekk lu leen amaloon si xibaar yi di leen jaajëfal bu a baax si seetaan bi ak ñi nga xam ne yéen a ko doon si Q Radio mu téeméer ak ñett yu tomb ñett fii si biir réew mi incha allahu rabi bi ëllëg jàmm nekk talata ñu tënk leen yeneen xibaar ngeen àndoon si ak Birame S jërë ngeen jëf